est-ce que c'est clair. c'est clair kay. non mais Mercedes bi ngay visé ngay jël gis nga entre les deux quatre quatre Mercedes président baa ngi. wala jëlal L200 bi non non non na Mercedes bi léegi yow bi moom mooy léegi léegi nag cargo nii dina ñëw nga Mercedes jëlal Mercedes président bi jëlal Mercedes bi mi ngi ne entre les deux mi ngi arrière gis nga ko ok am nga ko dans l'ordre voilà jaay ah, ñu Mercedes bi ma ngoog. ay ma maa bu ma jàppee du ma kii. non duñ duñ duñ kii duñ ko foogee fii. duñ ko foogee fii. waaw ah, dina damay ku filmé wul.

maa ngi nii maa ngi jël maal bi nice. waaw ah, làkk ma sëb yooyu dimbali ma rek. jiwal li ma kàmm kële voilà. xoolal ba ñëwal nii tamit ñëwal nii xoolal jëlal ba waa ji waa sëgg. ba waa ji waaw kooku kon. bi bu la gisee bi jàmbaaru suuf. waaw xoolal eh. kii ah, xoolal noonu kii naa ko dama ko nëbb sa bopp bi dama ko nëbb sa dama ko nëbb sa bopp bi. xoolal gendarme bi sax jëlaale ko. Ah? xoolal jël ko sax moom mi jëlaale ko. parce ku ñu rus jëlaale ko moom léegi mbaxanaam bu bule bu. waaw jël naa ñaaw bi 好了，嗯。Mercedes Mercedes mom nga ko normal. kooku la Mercedes. Oh, mom kay mom lay filmé ni. Ni ñoo ni ñoo ni ñoo am gàcce. wax ma. Ni ñoo ci. Ni ñu ni auto président. ñëw ba ci yoon bi naan dañuy kër ñu doon yàq njong tey laa waaw nee na ñu bëri ba pare mais xam nga ne sax dama ci sopp ba pare ñoom indi wuñ secours non ñi ñoo sigé bi boobu mu dem ñibbiwaat rek nga xam ne moom manque bi ci 4 4 yi